ko seen état wér yaram mu ngay gën di jéggi dayoo yile ex travailleuru Sotrac Sias Ama ñoo ngi seen ñaareelu fan grève de la faim ñoom nag li ñuy dénoncé mooy ñàkkub respect promesse yi nga xamante ne njiitu réew mi yëkkati woon na ko les dernières fois que le chef de l'État a émis ses vœux bu mu jëntal ba njiitu réew ci boppam moo amoon mbébét ne wax na daal ci benn émission bi nga xam ne bu la euh, moom ak El Hadj Assane Gueye ci ne daal premier lot bi nga xam ne mooy présentation cahier de doléance ci centrale syndicale yi waaye tey jii nag moom gis na ne daal li ñuy xaar rek moom metti na lool. Le constat Il est très amer. ñu ñëw si bile grève yi les travailleurs jaar nañ si bépp yoon ngir am li ñu bëgg. waaye nag loolee taxu ko antu. waaw jot nañu interpellé ki nga xam mooy njiitu réew mi dañ ko interpellé tamit ak jëw ñi nga xam ne moom leen dénk wàllum koppar yi ak agent judiciaire de l' wax nañu ne njiitu réew mi ne décision ak ay recommandations yi nga xam ne waxoon na ko ngir tamit société yooyee ngir ñu mën a li nga xam mooy seen payoor dañoo sàkku yi tamit ci wàllum protection ci wàllum médiateur de dala république. de la république. yile ex travailleur wéetuñu si bile xeex seeni njaboot yi sax. daal di nañ cee dugg ñu daal di menacer sax entamé ñoom itam grève bi. grève bi dañu ko fas yéene jàpp incha allahu tànk neewuñu ñu ñëw leen. ñëw leen fekk nu euh, euh, kër Macky Sall ñu waxtaan suñu waxtaanee ñu yëkkati seen xaalis jox leen ko tànk loolu dégguñu ko duñu ko mas a bàyyi ci àddina te dañuy dugg ñun jigéen ñi suñuy doom yi góor ak suñu doom yi jigéen dañuy dugg waaw. te bu ñu sonnee suñu sët yi dinañ dugg. lu toll si téeméer ak juróom fukki volontaire ñoo daal di bindu si liste bi waaye nag jamono ji fukk ak juróom kese ñoo tàmbali bi le grève ñeneen ñi fas yéene leen topp si waxtu yi ñu jëm su fekkee ne ñi di autorité yi réagiruñu